mbokk yi ñu teewlu yëpp ci turu Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di jottali ak ñoom mu jëm ci Cheikh Modou Mountakha di ko ñaanal yàlla suñu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram mën naa lii mu am ci liggéey Sëñ Bamba bi mu def ci lu koy njortam te ànd ko taalibe yëpp di jottali ay cant ak i mu jëm ci mbooleem njabootu Cheikh Rafal gi di njabootu boppam ci li nu weesu ak fi nu toll yëpp. jot jottali ndigal loo xam ne nag mu ngi bàyyikoo si moom mu jóge ci Cheikh Modou Mountakha jóg nañu Serigne Touba ji mu jëm si mboolem taalibe yi muy liggéey boo xamante ni dafay mel ne miin nañu ko xanaa ñu leeral rek ni nga xam ne noonu la ko Serigne bi bëggee te ko noonu Serigne am di fàllum Serigne Modou Mbenda yàlla di ajjuma ñu jëm incha allahu Serigne Mountakha wax ni. dafa bëggoon sëriñ Amdi Fall sant mbooleem njabootu Cheikh Ibra Fall gi bu ajjuma jàmm bu nu xëyee ci juróom-ñetti waxtu muy huit heures ñu tàmbali turu yàlla wi def ko ñaari waxtu muy huit ba dix heures muy juróom-ñetti waxtu ba fukki waxtu ñu ñaan su ko defee ñiy jàng ñoo ñu jël ba tisbaar su ko defee ñoom ñu wàcce ñi nga xam ne ñooy tudd jàng xasida ñoom jël ba takkusaan ñu ñaan toogaat dégluwaat ndigal kon sëriñ Amdi Fall mi ngi wax mbooleem koo xamante ni kii sa yaakaar mu ngi aju si maam Cheikh Ibrahima Fall mu ngi lay woo ajjuma incha allahu foofu si penku jumaa ji ñu daje fa tudd yàlla bu huit jotee rek ñu yëkkati turu yàlla bi fu dix heures jotee ñu wàcce sunu kàddu ñaan su ko defee ñu topp si ñun daal di tàmbali seenu liggéey sëriñ baa ngi ñaan liggéey bii li si sëriñ Muntaxa dëxëñ li mu si jublu ak li mu si bëgg yàlla na sunu borom defal ko ko barkeb si xam Bamba Xaadimu Rasuul ñun ñii nga xam ne nooy ay taalibe liñ siy sàkku lépp di ko si bëgg yàlla na ko si sëriñ bi defal yàlla nañ si tàbbi ak jàmm am si ngërëmul sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan sëriñ Amdi Fall yàgg fi te ànd ko wér ñaan Cheikh Modou Muntaxa yàgg fi te ànd ko wér ba yéene ji nu am si taalibe yi yëpp sunu borom mottali leen ko. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. la la la you have